Thank you. on avait euh, commencé tardivement quoi mais booy xool bi ñuy commencé tardivement la ñu commencé quoi donc yàlla dimbali ñu bon ba exempté bon tel woon suñu match ba nga xam ne booy xool match bi booy xool du première à la dernière avant ñu avant ñu rouge quelque gi sax bon ñu ñoo ko moomee quoi mais problème de réussite la ñu amoon quoi bon amoon nañu quoi jamais problème de réussite la ñu amoon quoi. booy ñoo a woon quoi xam nga football aussi ñi ma yor ay xale lañ man aw maay mag boy xool booy ma am fi ay booy ndaw kat ba équipe bu bees bu ñuy defar la quoi donc dafa am fu leen jëlee am fuma ma leen yóbbu quoi xam bon ay xalé lañ bon ñu ngi ko doon am mais xam xalé xalé buñ jouer rek des fois pression bi ak bëgg dugal bi xam moy mo doon problème boy booy quoi mais ñu ngi ko doon am bon occasion franchement mais loolu mo doon problème bi quoi liñ nek boy bo gisee mas keroog bi gëna a tay bu tey première heure naaj bi day tang tay li nga bëgg def yëpp mëno ko def ndax na bi tang ba paré dañ teel jël carton rouge loolu mo ñu xaw a sonal waye buñ jël woon rouge xëy na match bi do àgg fi ndax bo xolé commencement. dix minutes yu njëkk yi ñu ñoo ko déminé ñoo ko déminé bu am nañ ko ay balle bi waaye après rouge bi moo xaw a sonal ma xeeb bi ndax ñu onze waaye ñu yor ba ñu da ngay ñëpp dañuy def bloc bu da nga yor ba nag ngéttee nga joué boo rouge di sànni après da ngay sonn moo tax ma ne nañ fexe garder ballon bi ñu joué bu ñu joué bu boo xoolee neex na boo xaawee pareegu 100 pour cent bu pareewoon 100 pour cent ak 12 bi moom tey bu kon heure bi waxatuñ ko kon score laa koy dóor su ma amoon 12 sax dama koy jël dama koy dóor score waaye woon tey 12 premier mi-temps la après dama koy gagné waaye 12 moo teel après ñu doon suwaa 12 bi tamit ndax tamit équipe bu ñu la 12 nga a attaqué tamit bu ñu la dugalee da ngay gën a sonn waaw te ñun dañ doon ñëw pour am un point wala trois point alhamdulilah laa yi nekk suñu kanam